man jàpp naa sama xol bii teg fa yàlla bu wér faw ak fa mboolem ña koy mokkoo ka jaamu bu wér man jàpp naa sama xol bii teg fa yàlla bu wér faw ak fa mboolem ña koy mokkoo ka jaamu bu wér njagam damay jubadee kay sax ci def lu warul xol baa ngi ànd ak ña sax ci jub te sax ca la war njagam damay ku ji seeful muy fanaane sikar teewul sama xol ne dàkkal ñay fanaane sikar njagam bu guddee ma songub lal ne xamu ca kaw xol baa ngi ànd ak ña dul mu seeni lal ba fajar njagam dama boole mboolem guddi yépp rayit xol baa ngi ànd ak ña dundal seeni guddi bu bir njagam bakkan bi damay nootee ka not aka war xol baa ngi ànd ak ña koy not nos ko jàpp ko war njagam damay waaju ay noonam notit duma tee di soppa kay sant ñay xar boppi noona ka cor njagam damay ku na bëx koo xam ni ñépp a ko man xol baa ngi ànd ak ña réy aw fit ñemeñ bari ngor njagam damay waaju sellul sellalul duma tee di sopp ñay sella kay sellal fu nekk defar njagam damay dox di manqué kay tayee la ka des xol baa ngi sopp ñamat faj gàcce jiitu sawar njagam dama ne fi suufit maa ngi soppa kañee mboolem ña nekk ca kaw ñoo tedd ñoo jara jur yanaa ca bokku ci baaxu yàlla gën ca bu wér te jur ñu bokk ca ñoom ak jàmm gën ca bu wér faf naa la jébbal samay mbir lépp a ngoogu fabal te faf ma saytu bu wér sab saytu moo gën a wóor maa ngi samay mbir a ngi jàppal yoral defaral baaxal musal wattu ñag fekk lépp luy taxaruur dakul nooy falangal lor joo xam ak junu xam xetul nu waa mew ngëneel ak mbég wutam duulóor ñoddil nu lépp lu seddub xol mu ñëw nu nuyoo jàmmante jàmmoo ni dàkk ak jàmm juy fegu toor ñoddil njariñ la ca makaakiy madinatu ak njariñ la nekk ca tuubaa yët nu yow sunu buur ñoddil njariñ la ca makaakiy madinatu ak njariñ la nekk ca tuubaa yet nu yow sunu buur jébbal nu yiw wa ci suuf ak yiw wa nekk ca kaw ak wépp yiw wu ñu def seenu diggante nu ngoor mboolem njariñ yi ci kër gi gépp ak ya ca kër gee gépp yal nañu nuy lew faw tey sunu muur roofal ci nun faw bépp xam-xam ak njariñam te yor nu sab yor a gën sax fopp yor yatu nguur musal nu faw ci buur ak yat wa yal nanu moy tey ak ëllëg dal sunuy bañ bopp toj wana yuur jébal nu mucc gu teel ak barke ak mba mu sax ak yërmandey dex junuy tàbbee ka féeye ka noor seppil nu yiw yi ci duniyaa jépp ak ya ca laa xiraati jébbal nu faw ak sàlli cant yu suur yàggal nu àddina lool ak jëf ju yiw ju la saf junuy saxal ci yow ak loo sant cant gu wóor lislaam a gën lépp yal nay dund faw ak wér tey mucc faw ci wopp ak dee ka musle bu wér lislaam a gën lépp yal nay dund faw ak wér tey mucc faw ci wopp ak dee ka musle bu wér moo màgg mbir moo di sàllu yàlla yal na ko fab jébbal nu faw a ki yéeréem ak kuréel yu nu wër moo jar di sonnee ka sànkeek dund jar di yafal tey fonka kay wëgg kay ñàddal di wékk ka wër moo jar di sonnee ka sànkeek dund jar di yafal tey fonka kay wëgg kay ñàddal di wékk ka war nun ñépp yal na nu koy sonnee ka sanga ka yor tey dox di fopp gannaawam gaakaraaya ka wër nun ñépp yal na nu koy neexal ne dàkk ca lay waral mu xëy ni fataas ak jàmm suure ni wer nun ñépp yal na nu koy suural musal ko ci wam te yàlla na nuy ñu ko dul fàtte ka wàcce ka war rëy diine tuutu yaram man loola moo ma gënal sew diine rëy aw yaram yal naa wayaf te sawar yal naa sewug weñ te rëy nag diine loola ku tur xam yàlla am ko ragal ko jàdd sax ca la war xarit xarit yafalal yow mii sa diine te bul fexe dogub ko la kay yafloo ka diw sa kawar lu man di am sunu digg ak yàlla yàlla na rafet jag faw sax ci nañax gën foppi lampa ki weer yal naa di waaju ko saf man mii te lépp lu may def loola yàlla na ko saf saf gaaya jekk nga war yal naa ni dàkk ci lislaamam ji faw bu wér ñu faf ni dàkk ci man muy dund faw ak wér xandoor akub gopp a ngi añ baa ngi gàncax a ngi xos gaa ngi yal na nu am jàmm ak nawet bu rafet xandoor akub gopp a ngi añ baa ngi gàncax a ngi xos gaa ngi yal na nu am jàmm ak nawet bu rafet ku nekk yal na rafet mbay teel a sébbu lu am tawféexi mbay ëpp ndimmal ñépp fàppa ko fit ku nekk yal na lefoog am doole wér amu yiw way waaru waare sawar fam ndam la yóbbu ko fat ku nekk yal na ëreenam jépp ak dugubam bare bari mbay te nangoo nangu teg ci lewet ku nekk yal na manu toolam te ëpp ko laf bu xeece yiw wu ñu déggul fenn yiw ko wat ku nekk yal na ñu def ci toolam ak ci këram njariñ lu jar di tëjoo kay dugg àll te wut ku nekk yal nay dërëm yuy dikk faw te lew sax cib loxoom ak jibaam ak barke muy notu nit ku nekk yal na mayam gay yokk faw te sax cantam ga sax ndollenam sax muy ba ngéer ak not ku nekk yal nañu nanguk ñaanam ak lu mu jëf nangul mbayam dolli taw féexam musal ko ci cat ku nekk yal nañu ful dooleem ak yaramam mu mel ni as ndori nag su tëgg jàpp mu cet ku nekk yal na ni dàkk ak mbég te dëkke ni tax kawar ga mel ni këriñ xol bay niroo ku këyit ku nekk yal na xolam bay sedd faw mu sax ci mbég ba dugg ak mbégam firdew si lépp rafet nawet bi yal na nu fa nun jonkalam bi yanu te fa ndamam lépp jël waa fépp ñëw nuyu nu yamkat bi yal na ni yëkkat jonkaloob ña ko saf ak jonkaloob ñamu saf yannoo ki mbég nteyenu nun ñépp yal na nu suuxatkat bi suuxate mbég te suuxat ak waame gàncax gépp ndam wuyunu tawun nga nee la nga ñaay ak barke yal na ñëw ak seddu xol ak jàmm juy tax wépp ay sorinu farkat bi yal na faral jaamam ñi wépp maral te wàcce waa meyi fépp ak yiw yi mbég la renu fu mar wi dem yal na fab taw daldi dem bu ko far ba ñépp xam ni lu dul canta ngërëm wërunu jongante am na fu ne kub dàq yal na nu jong mboolem ña jong raw ña raw sut ron yaron yaronu jamaale it am na ak waalante yal na nu jam jamaale yépp te jam rab way waral nu tono lor ak njariñ am na foo dem waaye yal na nu raw lor faw dëkk ak njariñ ngëb diine ñibbitanu yiw yépp yal nañu dëkk ak nun nu dëkk ci mbég te buurakum koomam ak cantam gu sax jotinu ñun ñépp yal na nu raw gàccee ko ay jotu yiw wér gudd fan rafetu mujj boole ñépp tinu tawum ndam ak mbég bu réy boo xam ni bii dana tax xol sedd mbay mépp jub jag yal na ñëw ganenu tawum ndam ak mbég bu réy boo xam ni bii dana tax xol sedd mbay mépp jub jag yal na ñëw ganenu sanges tiraanga su lor dul tàbbi yal na mu wër ba kenn du seeru ku tukki dem ba ñëw tanenu nawet bi ak pexe yépp mbir yi yal nañu jub lool ak mbirum gaaya jóg ngir yàlla ñëw nuyunu buurub aras yow la nuy làqoo tëri kilifeek lotoo ci lëf bu fi lub xol bañ di jaar ak a feek diirug li ngay dund a kay def buur a kay bari laf nun deenu may suturaa kay dolli jàmm ka déet soril niit wépp ay woo xam ni teg nga ci bët te may nu waa mi wuréy wuy taali déq ki déeg nu ñépp dolli nu muccag ndam te yokku nu ay angaara ki jaaga kiy daaraa ki dooma ki jeeg nun def nu ñoo saytu ñoo saf ñoo defar ñu rasaf ñoo sant ñoo may ngërëm ñoo xam ni raw nañu jéeg nun def nu ñoo saytu ñoo saf ñoo defar ñu la saf ñoo sant ñoo may ngërëm ñoo xam ni raw nañu jéeg garab gu meññ gu seddu xol nga noo di lafañ yey raama kay jëkka mus ci gëm ya gaaya ca yéeg meññet ma nekk ca kaw koo xam ni kii dañu ko xëy fab tegal la fi suuf ak jàmm raw nga ña yéeg nun noo ngi lay sant géppuk cant yow ki nu teg ca kaw ñetti mi garab faf tii mi baara ki néeg njariñ lu yéemu lu sedd xol lu rëy li nga nuy dig saa su nekk ka jox yow dong dong ko néeg yow daa la dox sunu digg ak kuy loree ki loram te yaa nu boole ki ndam dénkoonu yax bu ñu ngeeg ngën jib sëriñ nga ma jox ak ngën ji baaya ki ndey ak ngeen ji mbooloo mu déeful bés ba kenn ca keek te rekk diirug li ngay man yow mi dul tele bis barab bu nuy ne bu fab yéefar di jaar ak feek jébbal nu bopp bu yaa boo xam ni lépp a ca xaj fajal nu it jépp lor ak aajo yaa mën a faj jébbal nu bopp bu yaa boo xam ni lépp a ca xaj fajal nu it jépp lor ak aajo yaa mën a faj jëbal nu it ndab lu yaa loo xam ni lii dana def buurub aras faw ak nguuram gu yaatu gi kaj jëbal nu xol bu rafet loolit bu mucc ayib boo xam ni bii yàlla lay soxlaa ka làmba ka daj jëbal nu itte ju suuxal jépp itte ju réy musal nu ci jëm gannaaw ak lépp luy taxalëj jëbal nu cant gu sax goo xam ni lëfu du ko dog musal nu it ci barab buy ndam di néew ak a gëj jébal nu jàmm ak lu nuy jaamoo kasante bu wér te joxu nu xiiwal yu dul jeex ak njariñ yu nu daj jébal nu mbandi njariñ jébal nu teeni njariñ jébal nu géeji njariñ doylal nu wëlli si goj jébal nu mbóoti njariñ jébal nu lépp njariñ jébal nu kay def njariñ jébal nu wuy wu ñu toj jëbal nu mbooti dugub ak mbooti gerte yu rëy jëbal nu taaxi nga neel ak néegi mbég yu ñu fuj jëbal nu dëddu gu mbooleem gaayu dëddu yanaw ak yar bu rëy bu rafet buy teenu dégg faraj jëbal nu yar bu ñuy yor ak yar bu kenn yoragul te def nu gaayu la deg fawit ca seeni dégéj jëbal nu barke bu deg ak topp yàlla gu deg degal nu fawwu kutam nag dal nu fenn na toj jëbal nu barke bu deg ak topp yàlla gu deg degal nu faw kutam nag dal nu fenn na toj jëbal nu it faw biir ak biti mucc gu deg te def nu aw doj wudul dee sax ba dee fi ko daj jëbal nu it gépp kee goo xam ni saf na la yow ak gépp kee gu nu saf boole te aajo yi faj jëbal nu it gépp kee goo xam ni saf na la yow ak gépp kee gunu saf boole te aajoy faj saxal nga fi man mii fukki yëf yu amul moroom gërëm naa la ngir yaa tax maam lu amul moroom saxal nga fi man mii fukki yëf yu amul moroom gërëm naa la ngir yaa tax maam lu amul moroom samay fukke ngi xaalis njariñ ndam ngërëm xoram wér ak sawar ak njël barke raw maa fi gën boroom ku sax nga ko nguuram sax saxal ma ci yow ki sax saxal ma ca kaw mbëri yépp yow ki nu boole tiim saxal ma ca kaw ne jant buy jant dong wër mu nekk ca seenu digg tey ayaleeka moom saxal ma ci tawféex ak ndam ak suturaa ku way te yor nu ba dugg ak nun ca àjjana ñépp luum faral nu sunuy moy yépp xëpp nu faw it samay yépp biir ak biti dolli nu koomi koom musal nu ci bàkkaar ak lu koy jur musal nu it ci bekkoor ak ñàkk ak lor ak ay soril nu juum musal mu ci notti nott bis penc yëg siwul musal mu ci laajub sang jur ga ci ab loxoom musal mu ci lott ak lépp luy taxa mos lu jib sëriñ cig juram dàkkul mu seytaane ak soloom sunub sëriñ ak mboolem sëriñ sépp yal nañuy amuk jur ci nun nuy am ngëneel ak ngërëm ci ñoom sunub xol la koy neexal seral ko seral gu wér ci yàllaa ki jaamam yal naam am gu sax gu woom sunub xol la tax muy talli ñay te sedd nag ci wet gu ne mbër may àtte yal na ko àtte moom sunub xol la tax muy talli ñay te sedd nag ci wet gu ne mbër may àtte yal na ko àtte moom mag ak ndaw ga nag dëkk ak ku sopp ak ku soppul ak ku baax ak ku baaxul yal na mbër def lu rëy ci ñoom mag ak ndaw ga nag dëkk ak ku sopp ak ku soppul ak ku baax ak ku baaxul yal na mbër def lu rëy ci ñoom lu sedd sunu xol dal sunum xel soril nu lor saxal nu ci jàmm ak mbég mu mbég dul kaweekatiim kanug waane waa ngi tàkk naati te yal na jam ci pàddu la rey soppee ki bañ ñépp bokk luum ku man di bañ ak kuy sopp yal nañu fab lamab xolam yéena ci cant ak tawat lépp sol ca moom ka daa neexalub xol ñiy bañ ak sopp fawu yal na neexal sunub xol ci bañ ak soppakub loxoom kadaa boole fépp ak ñépp jox kenn dong yal na booleeti fépp ak ñépp jox nooti nuy boroom kadaa yokk aw fan yal na yokkati ñépp fan te yokkati ñépp wér gu nee ci amul moroom kadaa yokk aw dig yal na yokkati wépp dig te yokkati bépp dig te yokkati mépp koom kadaa yokk mbooloo yal na yokkati ñépp nit te yokkati ñépp jub te fekk wépp xeetu juum kadaa yokk aw yiw yal na yokkati ñépp yiw te yokkati ñépp mucc faw ak njariñ lu woom kadaa yokk nit ndam yal na yokkati képp nit ndam ak ite juy jébbal boroomam ndam ak tonoom këlottul ci lëf yal nay seral sunu xol bi nun ci soppeeki noon ak seeni am jàmm yépp ñoom këlottul ci lëf yal nay seral sunu xol bi nun ci soppeeki noon ak seeni am jàmm yépp ñoom buurub aras yaa mata mus yaa dàq yow lu dee si mus sa cant yal na nu ko mus te mus mu la mus sa àjjana buurub aras yaa mata mus yaa dàq yow lu dee si mus sa cant yal na nu ko mus te mus la mus sa àjjana sa jàmm yal na nu ko mus sa jàmm yal na nu ko gis gisu ngërëm gu wér gu fés te am la am sa àjjana yow ku la mus mus na dara ku la musul musul dara musal nun ci yow dara ndaxte nu dëddu àddina yaam lu dàq àddina fapal lu dàq àjjana sa jàmm dàq àddina sa jëmm dàq àjjana tabal na fawu ci sa nguur guréy gi tabalal sa nguur guréy gi it ci nun bu wóor boola nu it ci àjjana yaamata xam yaamata am lu man di xew nanu la xam lu man di am nanu la am te bokk tàbbi àjjana yërëm nu yërmande ju sax jégal nu it njégal gu sax musal nu it musal gu sax gungeenu mbég ba àjjana gërëm nu it ngërëm lu sax sopp nu it sopp gu sax bégal nu it mbégal gu sax dàkk ku yiw ba àjjana sa mbég la nuy yoota ka diir rikki jamal nu ko buur jamal nu lépp lu nu diir li dale fii ba àjjana yal na nu téq jam la re lare bu gën bépp lare bu ku ñu xam masa lare wat addinaa ki àjjana addina yàlla na nu ko jam àjjana yàlla na nu ko jam jam yàlla jam yonneen ba jam sëriñ bi jam waa àjjana yàlla na nu yàlla may ndawal yoneen ba it may nu ndawal sëriñ bi it may nu ndawal ñu bokk may nu àjjana nawet bu boole nu musal musal gu gën gépp musal gunu gënal géppug musal te gën ci nun géppug musal nawet bi boole nu musal musal gu gën géppug musal gunu gënal géppug musal te gën ci nun géppug musal nawet bi nit ñépp a ko soow te nun la ñuy boole di soow ñépp a ngi nuy boole di soow yàlla nu feesal ba desal feesa ki ndam ba wala ngaan feesa ki may ba wala ngaan feesa ki mbég ba wala ngaan mucc le mucc mos mosal ñun ñëpp yal nañu wasal barke ci nun bu ñu fesal te mbubb moo xam ni ku sol bég faw yal nañu ko sol loo xam ni képp ku ko def mujj fi yal nañu ko def def guy waral kenn du nu def daraati mukk ka desal yal nañu am ci jépp wax ju ñu nu wax lu gëni wax lu nuy jariñ te lorut ña wax ku ca ne dee fi ko gasal yal nañu am ci jépp wax ju ñu nu wax lu gëni wax lu nuy jariñ te lor ña wax ku ca ne dee fi ko gasal wax yëpp yal nañu ni jig jëf yëpp yal nañu ni jig gët yëpp yal nañu ni jig jig gu ñu xam gu ñu fésal ka sedd xol yal na ni ciix la sedd xol ni nu ko foox musal nu ci mam ci xoox nuy pas-pasam bu mu fasal yal na nu boole def wurus wu mu fasal wépp wurus musal nu ci ras ak ci rus te boole bañ yëpp rësal yal na nu xëy jébbali may yu dal xel ak waroomi may te saa su nekk yal na cay xiti tonoo ka wis wisal yal na nu wis waame yu lóor te jàpp bii nawet ku lóor ba mu rafet rafet gu wóor waa fépp ñëw fi nun yësal ku nekk yal na ñëw fi nun jàng fi nun jëgg fi nun jàpp ci nun topp ci nun faw ñu boole nu musal ku nekk yal na ñëw fi nun jàng fi nun jëgg fi nun jàpp ci nun topp ci nun faw ñu boole ñu musal ñépp nga yor ci sab loxo ñépp nga yor ci sab loxo fépp nga yor ci sab loxo yow yal na ngay sunub loxo yal na nu sax ci sab loxo ngay fa bi ndam ci sab loxo di teg ci kaw sunub loxo nuy waajuram ba ti yoxo may nu ci suuf ak asamaaw ak gaa yi suuf ak asamaaw waa may tukkee asamaaw ñëw ak ngërëm lu dul tuxu yërmande yàlla na wala ngaan ku nekk am la mu dagaan di sampa kay fóota kanaan xol sedd mar wépp wéxu walluk te bind asamaaw yàlla na ba woo tey asamaaw dikki fi nun bu gaaw a gaaw seytaane yuuxu sex loxo li na ji lépp yàlla na sax te barke it yàlla na ci sax dàkk ngërëm te sax a sax ci nun nu sax ci sa loxo wal ga yal na ñëw bu gaaw waame wa ñëw bu gaaw gaaw xur yépp taa bu gaaw a gaaw ñu may nu ndam faw ak loxo naxal yi sax ci àjjana jëm yi sax fi àddina nu sax ci yoonu àjjana ba ni ja taaxam ya yoxoos naxal yi sax ci àjjana jëm yi sax fi àddina nu sax ci yoonu àjjana ba ni ca taaxam ya yoxoos àjjana daala mat a jëm yal na nu ànd ak ña ca jëm aw xàllu cant wa ca jëm déey ba tabbi ca ni nguus yal na nu sooboo ki ngërëm ngërëm mujjum ma ñu gërëm te dox ko dox bu ñu gërëm ba yegg cay béel ak xuus àjjana moo di kër gu wóor ña ca ne ñoo ne ci lu wóor ña fa dajee daje fu wóor yal na nu daw ba ni ca xuus yal na nu dënn wuti ko fecc ku benn wuti ko bàyyi ku benn wuti ko boole ndegam yépp ni nguus yal na nu cantam ya ni nguus xeegam ya bokk ni nu nguus nu boole leenati ni nguus ñu ñëw nu booleeti ni nguus yal na ñu boole ay mbégam te boole faw wi njariñam ak yëfam ak yiwam jox nu nu def ci sunu mbuus yal na ñu fab lépp njariñ lu fa ne boole ko taxañ jox nu ci xar baaxi sëriñ ban ba ki raw géej a ki duus yal nañu fab lépp njariñ lu fa ne boole ko taxañ jox nu ci xar baaxi sëriñ ban ba ki raw géej a ki duus yal na li tàmbalee file nu ne ba àjjana jëlee neexe ni àjjana jëlee fi nun te ñépp di nu buus yal na nu sax ci umpule lor yi cee dina jëlee ak lore ca laaxira jëlee yépp te raw lu dee fi soos yal na nu yàlla faf gënal sunu bakkan faf nu gënal sunu kër ak jépp alal daqal nu fapp ñamu soos yal na nu mboolem buuri biir ak buuri biti ñee buur muy gëni baadooloo ki buur bani ca firdew si yoxoos yal na sunu xol sedd moom faw ci yàlla ki nu moom sedd ci mboolem ñi mu moom dëkk ci nux nux ak ci naat xol yal na sedd nux nux yi bañ yépp rët di yox yox yi seeni xolit di jax jaxi ñuy bona kay dox di bonaat ñi sopp lañ ñi sopp ñoom yal na nu am jàmm ci ñoom ñépp te xol sedd ci ñoom sedd ku tax nu gërëmaat ñi sopp lañ ñi sopp ñoom yal na nu am jàmm ci ñoom ñépp te xol sedd ci ñoom sedd ku tax nu gërëmaat xol yépp yal nañu nu ñeel jëm yi yal nañu nu ñeel njariñ yi yal nañu nu ñeel saasu ne yal na nu gëmaat bis bu ne yal na nu xamaat bis bu ne yal na nu amaat bis bu ne yal na nu gëmaat yàlla te bokk ca jëmaat moo yor njariñ yépp ak loxoom yal na nu jébbal ak loxoom njariñ ya nekk ci loxoom yépp a ngërëm te yërëmaat yal na yërëm te yërëmaat yal na gërëm te gërëmaat yal na xoram te xoramaat yal na safal te safalaat yal na jubal te jubalaat yal na musal te musalaat yal na bégal te bégalaat yal na jafal te jafalaat jëfal na yal na jëfalaat fal na nu yal na nu falaat ful na nu yal na nu fulaat ci darajay ñamu fulaat yal na soxam ba jibati pex pexey jumbay jubati mbir yépp bokk jubati nu boole ndam yépp jëlaat yal na soxam ba jibati ba pexe jub mbay jubati mbir yépp bokk jubati nu boole ndam yépp jëlaat walam ga yal na ñëwati cantam ga yal na ñëwati naatam ga yal na ñëwati tànkam ba yal na fi ni naat yal na nu ñoŋ faw te naat fu ne na ñoŋ fawte naat ñafa na ñoŋ fawte naat ñu dëkk ci ñoŋ ak ci naat yal na na ñoŋ fawte naat fu nu ne ñoŋ fawte naat ñafa na ñoŋ fawte naat ñu dëkk ci ñoŋ ak ci naat buura nu jébbalum nawet jébbal nu dund bu rafet boole ca dund gu rafet noo war a sant bu rafet buura nu jébbalum nawet jébbal nu dund bu rafet boole ca dund gu rafet noo war a sant bu rafet buura rafet jëfam rafet joxe na lépp lu rafet dàkku na it géppug tawat dalal li xel dalal li fit xam-xam bu wér moonu ko jox anam bu wér moonu ko jox sañ-sañ bu wér moonu ko jox lépp njariñ moonu ko yëpp sutura am nanu ko lool tiraanga am nanu ko lool daraja am nanu ko lool yi wune xëy nanu ca jot yërmande jox nañu nu ko lu bon soril nañu nu ko ku bon fegal nañu nu ko faw ak araam ak lori cat xol yépp nee nañu gëriif yaram yi nee nañu gëriif ngir mbég mu rëy mi ñu nu roof rey ñi nu daalor ak a sot soppe yi yépp bég nañu bañ yépp yépp mer nañu seeni xolit wañax nañu dootuñu am seeni mébét far nañu lor junu amoon ful nañu yiwu nu amoon fekk nañu ay yiwu fi jëmoon may gu ne teg nañu ca bët mag mu ne dem na banu fi ndaw lu ne dem na banu fi kenn du ne nun yeggunu fi yal na nu ëpp ñëppi at yal na nu ëppi at ku ne yal na nu ëppi may ku ne yal na nu ëpp ndam ku ne fopp te gën ku nekku nit yal na sunuy njariñ di des ñuy def yiw te di fi des faw ak a sellal wépp sas fu nekk añ di nu fa wut yal na nu raw géppug tawat dëkk ci mbég noor ak nawet tey baax ak ay baaxum nawet sunu tey ak ëllëg rafet yal na nu jekku ndaw ñi te jekku mag ñi te jekku te bind ñépp yal na nu jëkk ci wiiw te jëkk ci ndam te jëkk ci jàmm ñépp yal na nu mujj ci jub te mujj ca kaw te mujj ci dun bi bépp yal na nu yokku barke te yokku wërsëg te yokku cant gópp yal na nu tedd am fan wu gudd wu gën a gudd fan yépp yépp yal na nu taawu mbég mu ne taawu may gu ne taawu sutura sépp yal na nu fenk ak ndollen te fenk ak doole te fenk ak tedd nga jépp yal na nu yàlla ak gaayi yàlla yaway ci yàlla ni xëpp lépp yal na nu mbër ma ni jàpp mbir ma teg nu ca ngir ma safal nu sàpp yal na nu gaaya jébbali laaya ak mbóoti laaya ndam ni nu ñebb xol yal na sedd bëgg na sedd bu ma sa sedd te dëkke xépp xol yal na sedd bëgg na sedd bu ma sa sedd te dëkke xépp yal na nu dund am xol bu dund bu sedd sedd guyi ci ñépp yal na nu dund am xol bu dund bu sedd sedd guyi ci ñépp yàllaa ngi dund te moo yor lépp yal na nu may gëm guy dalal fu ne am xel tey seral fu ne xol yàllaa ngi dund te moo yor lépp yal na nu may gëm guy dalal fu ne am xel tey seral fu ne xol moo nekk fépp te moo gën ñépp yal na nu koy doyloo ko wét li koo koy fab yiwam wu ne jël du daanu mukk du jëm suufit du jëng du joy du lax du lox du faseeku cant yal na nu fal lu yàgg-yàgg du dañ nguuram du dañ dafa sax nguuram ga sax nii la buurub dëgg-dëgg di mel ka denc ay ngërëmam moo gën ka denc dërëm ka denc yépp ay mbërum kaamil mu mat mu ko mal mboolem ku wéy ak ku teew ak képp kuy xala ñëw koo xam ni am na ci gëm yal nay ku yàlla musal yal nay ku yàlla jariñ yal nay ku yàlla yërëm yal nay ku yàlla teral yal nay ku yàlla faral yal nay ku yàlla bégal yal nay ku ñépp safoo yal nay ku naawe fi duniyaa dal fa xel mu ne dal yal nay ku yàlla bégal yal nay ku ñépp safoo yal nay ku naawe fi duniyaa dal fa xel mu ne dal yal nay ku dul dox fu ñuy tiit ak fu dee fi ragal yal nay ku dul gis lu ñuy tiit ak lu dee fi ragal firdawsi yal na nu cey teg bët ba dugg ca faf te sax ca seddu xol ak jaajëf ju ànd aku xel yi wépp yal na nu ñeel ak yàlla ak ngërëmam ak nguuram ak leeram ak taalum ndamam bu ñu wal firdawsi yal na nu ñeel ak fan wu gudd wu sut fan yépp sut gu rafet goo xam ni sedd na xol firdawsi yal na nu ñeel ak fan wu gudd wu sut fan yépp sut gu rafet goo xam ni sedd na xol mbër yal na foqati mboolem jur gi ceddo yi ngëpp jébbal nu fàwwu ci barkeb sang yépp nu ngëpp jaamoo ko sante ko bii rek bi ci cant gu sax saytaane mer yàlla bég yonneen ba bég pexe jub yéefar yi yal nañu tax lu gumba lott ci ngëpp ak ñeppi lotte ci ŋaaŋ ak téq fàtte dugub ñu alku yal nañu mel ni dall fawwe fi nun nuy sol di sant ka jëm kaw mujj seeni barab faf mujj seeni kër ak seenug jur ak lu ñu am ci yéere ak lu ñu am ci saafara ki garab lislaama jër lépp moo rëy yal na dëkk fi nun mbootam ya dëkk fi nun ndam lépp dikk nu fab moo taaru moo tandu yal nay dox di ballakataa fi nun ba def nug de xam goo xam ni ñépp a calab waa fépp yal nañu dikk ak jàmm jàpp ci nun jébbal nu jur gépp ak mbir yépp sib lu nu sib yiw yépp yal na ba woo tey jii fu nekk te ñëw ne dàkk dëkk fi nun dàkkul nu luy taxaleb li xew fu nekk te bon fajkat bi yal na ko faj faji nu cant wu sedd xol wu mucc ayib njëmbat gu bon fu mu am filkat bi yal na ko fil wuutal fa njëmbat gu tax mbir jub te ay bañ a jib ku nar lu bon yal na ko slëf ngëb ba dootu nu tal nuy sant kay tal lu ne kay sax ci jàmm ka jub yiw yépp yal na nu ngëb nun ñii te yal na nu koy ngëb fàwwu ngëb gu rafet ngëb jépp waaju ko ngëb buubal nu yiw wépp biir ak biti xëpp nu ndax nu dàq ci mooy saxal ci topp sant la ci dundal ci diine defar ci mbokk far ci lu bon fekk ci tawat rey ci biddaadu yi ci fecc li ci falee ci ay fale ci yiw yàqlee ci lu xat yokkoo ci yokke ci biir ak biti làq la ci dëgal ci ñépp rotal ci ŋàññ dàq ci lor gindee ci mboolem ñi réeroo am ci ndam falu ci boole ci mboolem ñi réeroo nag fi benn barab boole ci seeni xolit noppal ci noppalu ci neexal ci ñépp ba ko gis xol ba sedd mu bég not ci jullit not ci yéefar jub ci xettali ci jubal ci juble ci faj ci ràgg digle ci nag yiw wépp aaya ci ay jagloo ci sébbulu ci texloo ci ñépp ñu tex bayloo ci ñépp ñu bay yónnee ci ñépp ñu daw sekkee ci sekkli ci dadoo ko lépp lu bon jubloo ko lépp ngërëm sàkkoo ko sak cant ak saw tagg neexe la ci tobal sa bopp ak sa yiw wépp ak sa lépp ngërëm jébbal nu njébbal gu wér